représente. Baye coach Baye Ndiame Gueye. Babou sama xarit. <laughs> waaw sama waay Talla moo jaar ci mooy rafet yi Gora Sarr Habib Neex Tànk Serigne Souleymane Diop Serigne Souleymane Seck Serigne Modou Mohamed Bachir Ousseynou Meng Yaram Cissé Dame Anne Pape Gora Moustapha Seck Omar Gueye Talla Gueye Aliou Fall Sada Silla Baye Talla Gueye Pape Diagne Pape Thion Cissé Baye Mor benn musique message benn message pour ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan joueurs ñu ngi ñaan joueurs ak waaw Matar Diop délégué match. Mbaye Dar. Vieux Mbaye. Cheikh Fall. Chef Diop Elimane. Baye Salou Diagne. Birame Mbou. Mamadou Sow. Abdou Talla Dieng Mame Djibi Cissé Pape Sow El Hadj Seck Djibi Guèye Galangaar gi Mbaye Cissé Khalifa Mboub Sëñ Mori Seck El Hadj Dieng Modou Diagne Ino Serigne Faye Dia Cheikh Yane Pogba Cheikh Yane Guèye Mourid Ibrahima Diop Mamadou Seck Aziz Kostu Laay fay ngi nii Mamadou Diaw Aziz Sa Kos Serigne Mbeng Abdoulaye Kos Mouhamed Mboub dirigeant Kos Fadem Mboub Moussa Diallo waaw ziar naa la ci jàmm bu baax. bisimilah bon voici euh, Pape Mor Sylla. Pape Mor euh, TFC. bon Khalifa Tall. Euh, Fallou Ndiaye. Babacar. Babacar Ndiaye Massaer. waxal gaaw Ousmane Abdou Salam Baye Laay Mansour borom daara Madike Ndiaye Seck <laughs> Pamalaar Mohamed Ka Khadim Boubou Tall Akhlew Tamsir euh, Atou Samba Babacar Lo Babacar Euh, Mbaye Diagne Mbaye. <laughs> merci beaucoup Varé merci beaucoup merci. Merci, monsieur le commandant. Le MDL On reprend le, le match. Le match commencé na. Ballon dégagé par euh, l'ASC Rail bi. Match baa ngi doog commencé. toujours 1 bi à 0 à la 27e minute euh, ci par Baye de Baye Dame qui cherche attention hors-jeu hors-jeu hors très dangereux Cheikh Gueye avec ses appels très dangereux Cheikh Gueye avec ses appels ballon pour Moustapha il cherche l'égalisation dégagé par attention oh mauvais attention très bien Cheikh Modou quel geste quel geste de Cheikh Modou ce petit le numéro 8 ballon pour l'ASC Étoile Étoile faute faute faute de main faute Cheikh le numéro 10 de l'ASC Rail qui fait son match Ballon pour Cheikh Modou. Attention, ballon pour l'ASC Rail bi. Nous sommes à la 40, euh, 46 minute. Le jeu se reprend. Ballon pour Cheikh. Seigne modo qui dégage. Dégagé par Aliou Fall. par le numéro par Gora. Gora, non, mauvais dégagement. Tête de Baymor. Gora. Gora qui récupère attention dégagé par Mame Djib hors-jeu de Cheikh Gueye Cheikh Gueye Cheikh Gueye mauvais placement ba léegi nii ASC Rail bi li mu doon football lay football day leen di déglu ballon pour Gora Gora Gora Gora attention ballon pour euh, le numéro 2 Monsieur Babacar Diagne, on Pape Diagne, Pape Diagne, Pape Diagne, Pape Diagne, Pape Diagne. Récupéré par la Serail. Attention, Baitala, Gora, Gora, Gora. Gora qui récupère le ballon. Oh, coup franc. Gora, il joue très bien même. Oui, hmm. le numéro de l'AS Étoile. Merci encore une fois. bu baax euh, pour ASC Étoile. attention sàcc na ko sàcc na ko oh légalisation de l'ASC non l'arbitre dit non non non non attention l'arbitre ne dit attention arbitre dit non arbitre arbitre arbitre nee na arbitre bi nee na bu légalisation de l'ASC Étoile non de Dieu da loo seetaan siré gars xam na ni loolu ci football la bok may ñu leen ñu préparé may ñu leen ñu préparé dañ leen a nax dañu ne nax waaw kon Gora ak Cheikh ñoom ñooy toj terrain bi Gora mi ngi ci troisième ba tey le frère de Gora kon gis nga Baye Talla ak Gora dafa mel dañ koo réunion Baye Talla dafa teg rek ba basketball bi ñu taxaw di xool voilà loolu lépp bokk na ci fubal loolu ci fubal la bokk deuxième minute deuxième minute trois trois troisième minute ASC Étoile qui égalise à la deuxième minute ils ont fait parce l'expérience fait la différence ñu def seen expérience teg bal bi ASC euh, euh, raay bi avant ñuy positionné wu avant ñuy positionné wu l' arbitre bi nee na bii la à la huitième minute ñu dugal bi arbitre bi dugal na bi euh, carton jaune pour Baye Dame carton jaune pour Baye Dame ASC protestation de l' ASC Cheikh Gueye Cheikh Gueye ñu ngi protesté wu parce que ñu ngi xaar ASC Étoile égalise égalisation pour l'ASC Étoile par le numéro 10 Gora coup franc bi dafa am ñuy xaar baras gars yi teg bal bi dem seen yoon ca ba loolu ci jeu la bokk les normes de FIFA règlement yu bees yi ñoo ñoo ñoo leen ñoo ñoo maye loolu. attends le jeu Gora Gueye son frère qui marque mu tontu ko mag ji dugal na mu tontu ko vraiment macha allah les frères Gueye les frères Gueye. non il y aura pas de problème parce que arbitre nee na but attan bal bi ni un un but partout un but partout tête tête de Moustapha récupéré par Gora mauvais dégagement oh, Pape mal repris match baa ngi neex Alpha ah parce que gars yi dañ leen a nax des na ay bi attention Gora Gora non Gora Gora attention le numéro attention l'ASC Étoile qui se réveille l'ASC Étoile qui se réveille Oh, quel jeu Oh L'AS Étoile qui réagit, ils sont réveillés. Yéounan, AS en Raibi. Gaï, dès la deuxième minute, tu l'as dit, dougal len sen coup franc bobu. doy war. Gore Gueye dougal ko. Dégagement de Mam Djib. Mauvais dégagement. Baytala. Baytala qui donne. Baytala. Ballon. Attention, attention ballon l'arbitre ne dit rien l'arbitre ne dit rien Baye Talla ah, bataille à la milieu de terrain Baye Talla Baye Talla attention c'est oh l'avant oh coup franc coup franc oui baa ngi doog relancé wul le match se relance attention ballon pour l'ASC Rail bi ASC Rail bi mi ngi doog a encaissé na bi ASC Rail bi encaissé na bi bu gaaw a gaaw a gaaw alors Mame Diop waaye un autre match le match se relance dégagement de Mame Diop Baye Dame Seck Baye Dame montée de Baye Dame montée de Baye Dame euh, six mètres six baa ngi neex on voit que euh, supporters yi gën nañu bari parce que match bi dafa gën a neex dégagement du de Baye Talla bi Attention, récupéré par Gora. Gora qui fait le centre. de Gora, tête, tête de Mamdjib. Attention, là c'est Étoile essaie de combiner au milieu de terrain. Dégagement de... Attention, ballon tête de Mamdjib. Gora. il est très dangereux. Gora qui prend le ballon. Il est très bon en ballon pied. Il va le dribbler. Gora. Gora qui fait le centre. Oh Centre de Gora. Oh, hors-jeu, l'arbitre qui siffle, l'avantage. Attention dégagement, Sergei qui, se lance, Sergei qui se lance, Sergei, oh le gardien de but, oh notre Dieu Coup franc, Sergei qui avait le ballon. Carton rouge, carton rouge, ce sera rouge parce que ce sera direct. Laissez-le, ce sera rouge direct, oui, génn rouge bi. carton jaune, mais c'est quelle zone Attention, Baïtala avait perdu. Sergei moo jël bal bi mbëkk ko arbitre bi gars ngi discuter arbitre bi gars yi ngi discuter moo tax man la attention au contre contre yi dama koy wax Sergei il est très fort ah gardien bi arbitre bi mi ngi jaune parce que gars yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi critiquer ASC Rail bi nan bàyyi arbitre mu def liggéeyam nan ko bàyyi mu def liggéeyam gënuñu koo xam li muy def attention mais rouge direct la lii moom rouge direct la lii moom rouge direct la waaw ñëpp xam nañ football rouge direct la parce que dernier défenseur la woon jeex na tàkk gardien bi moom moom ah, gardien bi moom dañ ko war a xonqal tuur ko bisaab bi mu ñibbi mu génn waaw ah moom moo mujj moom moo mujj gardien bi moo mujj balle de but la balle de but la bi moo mujj rouge direct la rouge direct la à moins que arbitre bi bàyyi ko mu jàll waaye bal bi moom rouge direct la il ka se préparer pour metre mettre notre gardien mais pour le moment moom li nu gis moom dans les normes dans les normes moom mooy rouge direct la Cheikh Gueye s'est blessé ñi ngi xaar waxoon naa leen ko ni leen contre yi nan koy moytu parce que dugaloon na ko da ci da Merci beaucoup. Donc euh, le match est momentanément arrêté suite à une blessure de l'AC, de joueur de l'AC Raibi. Merci Babacar. Merci Pam présentation de votre délégation. En attendant, on attend. le numéro bi la ko jox parce que doon kaas nee na leen jënd leen daal waaw ah. Qu'est-ce qui se passe

ñu nekkul joueur nañu génn. lii lii ci cadre football la bokk ah. lii du dara lii football la. lii football la. match day am carton jaune day am carton rouge. l'arbitre est le maître du terrain. l'arbitre est le maître du terrain. du terrain. donc euh, hmm? il ne faut pas saboter la finale neex ba pare neex na ba pare ce soir il faut mu am un vainqueur et lépp benn la lépp Thiénaba Seck lay ñibbi lépp Thiénaba Seck la jëm enveloppe bi amu ci solo li ci am solo mooy ñu jouer ko dans le fair play ñu joué ko dans le fair play. ñu nekkul ay joueurs. à part service d'ordre. nañu génn. Thank you. on nous annonce le maire Mbaye Dione le maire de la commune de le maire des communes on nous annonce l'arrivée de monsieur Mbaye le maire des communes le maire des communes le maire des merci beaucoup merci beaucoup Voilà donc le match est momentanément arrêté suite à une blessure du joueur de l'ASC Rail et finalement le gardien est expulsé. Le gardien de l'ASC Étoile écope d'un carton rouge, Monsieur Fallou Cissé, euh, suite à une blessure de la petite waaw euh, merci beaucoup euh, monsieur Djibi ñu ngi lay gërëm euh, di la sant ci reportage bu neex bi nga xamante ni bokk na ci li gën a neexal match bi vraiment aujourd'hui nag tey ñaari équipe yu mag a mag a mag ñoom fi daje étoile de Thiénaba Seck et de Thiénaba Seck deux grandes équipes coachées par deux grands entre parce que par deux grands entraîneurs en l'occurrence euh, monsieur Abdoulaye Faye et monsieur Diame Gueye actuellement c'est un but partout entre les deux formations une rencontre tellement tellement vraiment le premier but euh, de l'ASC Le premier but de l'ASC Raibi est marqué par Cheikh Gueye. Il est actuellement le meilleur zone, le meilleur buteur euh, du tournoi zonal. waa ci biir loolu nag euh, xam naa avant ñu continuer rek jibi pour école la dañuy jox euh, monsieur Abdou Diouf mu def ay euh, présentation su defee présentation ubbil parrain bi ñu joxe tuuti rek. historique ñu indiwaat ko comme ni nga ko waxee noonu rek Djibi vraiment merci beaucoup kontaan nañ trop Abdou bisimilah kàddu gaa ngi noonu. merci beaucoup euh, Fall euh, ñu ngi nuyu ñëpp di ndax bis bi jëmmal ngeen ko mais ku gis ni ngeen ko jëmmalee xam ne def ngeen ko ak yéene. Mame Djib moo ko teg ak Pape Sow ak Mourit ñu xool gardien bi def na barrage am ñu xool gardien bi un bon coup franc nag mais gardien bi fi mu taxaw bu deful ndànk dinañ denc bal bi ci côté bële de. waaw bu bu ba Mame Djib koy dóor bu wóoloo barrage am bal bi dina dem ca kër ga de. bu wóoloo attention ballon un coup franc très dangereux attention alors saisi par le gardien plus waaw bal ba jàpp na ko premier ballon pour gardien bu bees bi. Cheikh Gueye dugaat na ci terrain bi. waaw Cheikh Gueye dugaat na ci terrain bi ba tey match bi mi ngi daw taxawoon nañ ba am juróom benn minute léegi. oh là là. Pape Sow Pape Sow ballon pour Pape Sow Tafa pour euh, attention ballon pour Tafa Seck li ma ko. paa bi bàyyi na lu mu doon raay bi ASC raay bi ak ASC étoile. ñu ngi bëgg a lëndëm Cheikh Diagne voilà que bu nu gaawul bu bit amaatul rek tiro bi lan jëm parce que bi day tas ma attention ballon pour raay bi dégagement de dégagement de Moustapha Moustapha attention ballon ballon ballon ballon ballon oh non deuxième la deuxième bi l'ASC Étoile qui marque son deuxième but. Attention, c'est fini à la 17 minute. Nom de Dieu Quelle folie, quelle folie nelaw Quel match, quel match Quel match, quel match Bat bi doog Oh toto Siré bal bi marqué pour Dame Dame marque pour Dame ba mu tur Dame njëkk a dugal mujjee dugal gis nga daam li mu def. waaye gis naa daam. bal bi contre la bal bi contre la. maanaam daam nu mu la dóoree bal bi daam nu mu dóoree bal bi. bal bi daf may fàttali Ronaldo. Ronaldo Allemagne Brésil 2002. 2002. bal bi léegi loolu loolu mu dóore bal bi nan la tudd. moom la ñuy wax kàjji. moom la ñu naan kàjji. da koo kàjji. Macky Sall nee na ren bi muy dem ci nawet bi ñuy dem ci coupe d'Afrique bi. coupe du monde bi. coupe d'Afrique bi nee na leen dee leen kàjji. dee leen kàjji waaye daam day. daam kàjji naa waaye bu ko dóoree day naaw mu kàjji ko dafa nax gardien bi nag parce que daa yaakaar ne day def contrôle. bu dooree day naaw mu kàjj ko bal bi ram. voilà mu nekk bit bu rëy rëy rëy. waaw léew bit bi noo ci jàngatee parce que noo jàngate ci match bi noo jàngate ci match bi sama consultant. waa match bi ni ma ci jàngate mooy boo gisee eh, ASC eh, Rail bi dañu def seen coup franc bi defee coup bi fàtte ci ginnaaw. waaw fàtte ci ginnaaw ñaari équipe yëpp dañoo mën contre parce que am nañ ay joueurs de champ. bi bal bi demee rek waa ji këf ko mu jaar ci diggante ñaari défenseurs yi gardien bi génn mu def ko ci kër gi. voilà kon 2 bi à 1 18e euh, minute marque euh, kon ba tey temps euh, match bi ba tey match bi wëlbatiku waat na ci ASC étoile étoile favori pour étoile match bi 1 bi à 2 bi à 1 arbitre bañ na bal de touche bi. voilà deux bi à un ba tey match bi walbati ko waat na fi mu toll nii ci diggante ASC étoile ak ASC raay bi deux bi à un. léegi nag ASC raay bi day fas yéene jéem a revenir mi ngi ñëw match bi match match baa ngi daw ñu ngi ci à la dix-neuvième minute ñu ngi mais day xaw a guddi man yaakaar naa ne mi-temps bi du yàgg mi-temps bi du yàgg parce que day guddi match bi mi ngi temps bi mi ngi joué ci ci ci timis gi. Attention, coup franc pour l'ASC Rail bi. Ballon tiré, tiré. Le gardien. Boxé par le gardien. Dégagement. Attention. Non de Dieu. Non de Dieu. Vieux Mbaye delloo na bal bi. C'est Mourid, Mourid la, Mourid la. Mourid. Deuxième mooy kan. Ah, Yaram Cissé. Voilà. Ba tey tir pour Tafa Seck. Tafa Seck tête pour Abdou Ngom récupération par mu dugg ci wàllu politique. Gora Mamadou Ly Mohamed. centre pour attention. oh là là. dégagé. Mansour Ndiaye. récupération toujours. Modou Seck. ballon pour Modou Seck Cheikh Gueye toujours attention. ah la Tafa Baye Mor. sama consultant match bi mi ngi. attention parce que baa ngi lang parce que on est naa ne bu wul 30 minutes. ndax euh, mi ngi guddi euh, attention ballon ASC Rail bi mi ngi dawaat parce qu'il avait ouvert le score à la 27e minute ci premier mi bi tey mu ñëw encaissé waat deux buts parce que l'expérience fait la différence AS AS Étoile dañoo joué ci seen expérience. waaw ba pare ñoom dañoo am rouge mais rouge bi feeñul. rouge expérience bi ba pare. Euh, ballon pour Moustapha Simet match baa ngi lang Gora demande le ballon Gora le numéro 10 très muy joueur bu mën a football macha allah attention qu'est-ce qui se passe on fait le changement changement pour euh, l'ASC Rail bi ASC Rail bi su su match bi jeexee deuxième trophée deuxième étoile pour l'ASC Étoile deuxième étoile la euh, mais euh, ASC Rail bi bàyyeegul ballon pour Cheikh Fall la Cheikh Fall Cheikh Fall lan mujj yóbbu latéral moo tax euh, Rail bi am tuuti problème parce que li mu doon fubal ci commencement bi baaxoon na mais bi mu reculer Cheikh Fall ak ñii dañuy yéeg seen kaw Cheikh Fall moo mujj nekk latéral. très bien Cheikh Modou très bien il a bien joué ko arbitre qui siffle le numéro 8. Modou Seck Modou Seck il joue très bien même parce que laay euh, laay dafa changé sa tactique de jeu li mu changé noonu ci la gis faay génn nag parce que Cheikh Fall devait être attaque bi moo mu jël ko wàccewaat ko delloo ko latéral bu ko defee ASC góor day mën a dem parce que Cheikh Fall moo nekkoon premier rideau bi ballon pour Mame Djib attention ballon ballon pour Mame Djib attention au contre nan maytu contre yi ne góor dem na góor dem na góor dem na góo góor a dem na góor a dem na il est très bien il est très bien même góor a vraiment góor man gisoon naa ko ci eh, eh, eh, FC bële je ne sais pas xaw ma tax newu ca rafet corner pour l'ASC Étoile corner pour l'ASC Étoile tête de... Attention récupéré par le numéro 16 Gora. Attention, dégagement de... Attention, attention pour la SRIB. Touche, touche pour la SRIB. 2 buts à 1 pour la Étoile. mu ñëwaat seen kaw attention ballon pour Sadio Mané Sadio Mané Sadio Mané moo dugg. Abdou attention toujours deux buts à un ASC étoile moo mené ballon pour euh, l'ASC Rail bi ñuy pousser pour essayer d'égaliser attention ballon tous ASC étoile mi ngi ciy xëpp kaan yi touche centre centre tête de Moustapha corner corner corner au corner corner corner pour Laye Seeraay bi ñu ngi pousse dernière occasion mën na nekk. attention ballon pour euh, Laye Seeraay bi tout le monde est monté ñëpp monté nan pour égaliser. attention centre centre centre centre tête dégagement de attention attention la. attaquant bi s'est lancé oh. bi nee na non arbitre dit non jouez jouez ballon perdu ballon perdu attention ballon perdu ah. mais hors-jeu là attention Baye Baye Talla Baye Talla attention match baa ngi dem tous la Serail bi mu ne buts à 1 par l'ASC Étoile touche touche ASC Étoile danoo commencé di yàq match bi récup taxaw waaw. foon match bi noonu lañ koy man a fubale ndax ñoom dañoo am rouge ba pare. voilà loolu moo tax match bi match bu métti lay doon voilà match bu métti lay doon loolu moo tax. Euh, wax ci la. ASC bi mu ngi pousse ñi ngi pousse seen dernier minute la nekk mi ngi match bi màgget na match bi métti na ah waaw bi attention ballon mauvais dégagement tête de Baytala attention contre bu contre bi nan ci moytu Baytala attention récupéré par l'ASC bi l'ASC Rail bi qui n'arrive attention Baye Modou Cheikh Modou ses œuvres Cheikh Modou oh il est très bien ce joueur-là Cheikh Modou il est très bien il joue très bien Cheikh Modou il joue très bien Cheikh Modou vraiment il joue très bien. la presse bi ñu commencé attention. dañoo jàpp ne le président. attention ba léegi raay bi moo yore moo ba léegi bi moo yore bi. ba léegi raay bi moo yore bal bi attention dégagement maytu leen contre bi Gora Gora Gora Gora Gora gaañ nan ko attention dégagement Gora Gora qui récupère Gora Gora avec son frère avec son frère quel jeu <laughs> Gora avec son frère Gora était en de rire Batala attention attention au troisième but ndax ces étoiles ñu ngi yéeg ci kaw malgré seen rouge bi bal loolu feeñul la attention attention attention tous pour l'ASC Rail bi attention lay Rail bi ñu ngi demande Cheikh Gueye demande Cheikh Gueye demande Cheikh Gueye demande Sadio Mané tous Sadio Mané Sadio Mané Merci aux enseignants, comme franc. Sadio Mané qui la faute. ASC Rail bi ñi ngi ko bëgg di wut supporters yaa ngi yuuxu supporters yaa ngi yuuxu ASC Étoile la son deuxième étoile la ASC Étoile cherche son deuxième étoile la. ngi seet sa deuxième étoile étoile am lay mujj une deuxième étoile lay chercher étoile mi ngi wut si une deuxième étoile. coup franc pour l'ASC Étoile la malgré rouge bin ko rouge mi ngi joué matcham vraiment le coach Ndiame Gueye def na lu rëy rëy rëy rëy mener un but à zéro revenir au score loolu expérience rek moo koy def le grand coach. voilà bi mooy cinquième match Étoile te Étoile deuxième match étoile premier match étoile moo jàmbaar la woon un bi à zéro deuxième match am muy Kër Madaro mu dóor ko 3-1 te jàmbaar euh, Kër Madaro moo ko njëkk a dugal euh, étoile euh, remonté ko après mu dajee xay quart de finale xay dugal ko jàmbaar étoile égalisé étoile égalisé jàmm xay dugalaat ko quart de finale étoile égalisé waat ñu dem seet de penalty mu gagné ko mu dajee Ah, équipe bi mu dajeeg équipe bi ngay wax demi-finale Touba Gueye ASC Jàppo bu Touba gay nga xam ne ASC jàppoo bu Touba Gueye étoile mos na koo dóor ci terrain bi ñu daje demi-finale premier match demi ñu def ko deuxième édition première édition bi ñu def 0-0 bi ñu defee 0 ñu am dugal gagné jàmm euh, ASC Jàppo bu Touba Gueye am na dugal gagné waaye dóor ko Talla Gueye daal di koy jàpp ñu daal dem ñu tëgg ko deuxième édition. <clears throat> ngeen baal ma ñu tëgg ko deuxième édition après étoile daal di koy gagné trois bi à 1 ñu ko dooree trois à 0 léegi match ba nag am histoire ca la mujje waaye ñu jox étoile ndam gi bi mooy cinquième match am waaye étoile yaakaar naa ni bi mooy ñaareel muy remonté voilà oh là là match baa ngi bëgg a màgget nag euh, waaw. occasion bu rey la la la ASC étoile am ñu koy wax Birama moo ko dóor mu dem. walaay manque de compétition moo koy waral jàkk xaar na téye bal bi ci suuf loo am jël mais boo ko ay ci kaw day naaw l'ultime occasion la amoon Birama Mbuub attention ballon Moustapha qui dégage Moustapha qui dégage Cheikh Fall ay seeraay bi gardien bi jël na bal bi dégagement de dégagement de l'ASC Rail bi ñuy gërëm képp fu mu sa nekk pare donc heure bi daaw. na. Pape Sow Pape Sow Pape Sow ballon arbitre dit non attention Gora dem Gora attention Cheikh Fall Cheikh Fall qui renverse Pape dégagé par. l'ASC Étoile donc loolu dafa aussi xam nañ ko donc tey je peux dire que touche pour l'ASC raay bi match baa ngi màgget match baa ngi màgget match baa ngi màgget ballon pour l'ASC raay bi Cheikh Gueye Cheikh Gueye Cheikh Gueye qui tient le ballon Cheikh Gueye qui donne au gardien de but attention le gardien dégagement du gardien dégagé attention on joue derrière ballon pour Sadio Mané Sadio Mané Sadio Mané Sadio Mané Sadio Mané qui donne attention ballon Birama attention Birama Birama qui bi l'ASC Rail bi ballon perdu Baytala Baytala Bayta attention perdu oh coup franc l'arbitre qui dit coup franc coup franc là nous sommes à la 33e minute il ne que deux minutes deux minutes moo des étoile yëkkati kubam muy deuxième étoile am deux minutes deux minutes quel à la 27e minute remonté égalisé à la deuxième minute attention ballon Gora dem na Gora dem na Gora Gora qui centre oh attention ballon ballon pour l'ASC Rail bi perdu perdu l'arbitre qui siffle voilà kon match bi ñu ngi ci 34e minute deuxième mi-temps yaakaar naa ni arbitre bi match bi li ci des bëree tut waaye nag bu fekkee xool na li ñu tëdd ba tey match bi dina des euh, jeu tuuti wante match bi loolu ñu naan màgget na bu baax a baax ñu ngi fubal bal bi nag gaa yaa doxal ci sérieusement bu baax a baax kenn ku ne li nga mën a yaa ngi koy wane voilà Ali Fall latéral gauche de ASC Étoile Cheikh Diagne moo tuus jël bal bi mi ngi taas na ko tuus na ko Birama ba voilà Cheikh Gueye Cheikh Diagne oh là là ba voilà gardien bi blessé na gardien bi blessé na il va jouer sur ci chrono bi il va jouer au chrono gardien bi dana dana dana lekk minute bi ci des Ah, ah, match bi màgget na match bi màgget na l'ASC Étoile qui va remporter sa deuxième trophée il va remporter son deuxième trophée match bi mi ngi noonu match baa ngi noonu ASC Étoile ñëwaat na l'expérience de Ndiamé Gueye moom la wonewaat fii jëlaat coupe bi kon le Don King Ndiamé face à Euh, euh, comment dirais-je euh, lay fay lui aussi. démérité démérité waaw góor a match bi remplacé ko maanaam changement ko gagné wala coach ko gagné wala joueur ko. non match bi li ma gis coach moo ko gagné parce que. waaw góor a tuuti góor a bi nee nga coach moo ko gagné mais match match bi ni ko coach gagné góor waaw parce bi ni comme coach gagné mooy erreur la benn erreur rek la coach bi beneen coach bi def rek beneen coach bi profité yu ndax laay fay ni mu démarré woon. commencé def euh, di nax gars yi ci contre bi mais bi mu duggee deuxième mi bi mu jëlee Cheikh euh, Cheikh Fall nga xam ne moo nekkoon deuxième attaquant mu wàcce ko comme latéral dugal dugal beneen attaquant euh, am gauche wu latéral droit bu bu ASC bi dafa commencé monter mais ba fa Cheikh nekkee monté wul loolu moo indi deuxième bii bi. waaw léegi foofu noonu yow góor <coughs> a bi raay bi amoon na rouge ci contre 2019. deux mille euh, dix amoon na rouge contre entente entente daal di koy gañe mais tey mu am rouge ñu gañe ko léegi loolu noonu loo noo ko système non xam nga rouge bi fee rouge bi feeñul rouge bi problème positionnement la problème positionnement la parce que équipe raay bi ASC raay bi ak ASC étoile tolloo doole kon rouge feeñul foofu ah, donc bi rouge bi amee étoile da ca dafa utiliser expérience am étoile dafa utiliser expérience am ba mën a euh, am deuxième bi am yéeg ci kawam avant raay bi di réagir nga xoolal attention le troisième bi va venir attention il n'a pas hors-jeu attention attention heureusement heureusement yàlla défenseur Badji bi est venu waaw li ma doon wax noonu mooy match bi coach moo ko gagné ndax wax dëgg yàlla premièrement premier mi-temps bi respecté attention raay baa ngi dem raay baa ngi dem attention leer na oh. oh bonne occasion bonne occasion occasion baax waaw raay bi dafa nekk euh, parce que waaw Cheikh Diagne ngi doo a dugg waaw waaw waaw dégagement voilà attention bal baa ngi dem bal baa ngi dem ASC Étoile la ASC Étoile waaw li ma doon wax léegi nii match bi ni nga ma laaj euh, match coach la waxoon naa la ko ci début début bi ñaari coach yi tactique lañ kenn ki nekk yaa ngi suivre sa morom Ndiame mi ngi xool laay laay mi ngi koy xool mais bi nga xamante bi ni laay wa wàcce na benn um, uh, attaquant def ko latéral automatiquement Ndiame dafa jël góor a indi ko côté droite bi fala ma sane mais dafa commencé yéeg ndax Cheikh Fall moo doon def deuxième rideau. waaw mais bi Cheikh Fall reculé mi bi ñoom danoo yéeg seen kaw daal di am deux waaw ba pare biñ ko. attention ballon pour raay bi waaw bal bi jeexagul match bi jeexagul waa li may wax noonu mooy. o ñoom ñaar ñëpp ay jàmbaar lan mais problème li ma lay expliquer ci ci jeu bi noonu gisoo Cheikh Gueye Cheikh Gueye ba mi ngi fubal comme comme axe parce que moom mi ngi yaa ngi ko waroon a gis ci ci ci ci kaw attaque mu créer surnombre mais ba léegi nii moom mi ngi fubal comme meneur de jeu donc te loolu du yoon waa gisoo gisoo Cheikh Cheikh gisoo xoolal xoolal xoolal les occasions se multiplient ballon zéro bal bi duggul bal bi duggul bi corner la dernière occasion mais ay seen bon di may wax nii rek pour ne pas dire pour dama koy wax pour calcul ni rek euh, lay bi moo moomoon match bi moo ko moomoon mais par expérience ci la ko ASC étoile récupéré waate comprendre nga. ci coup boobu daal coup franc bi mooy expérience parce que même égalisation bi sax timit noonu la demee dañu leen dañoo xaar ñuy xaar teg bal bi yox suwaat leen ñaar yooyu moo ci am quoi. comprendre nga kon pare wu noonu danoo xaar ñu bala ñoo pare ñu teg bal bi def leen ko comprendre ñaari occasion yëpp ci manque de concentration la woon waaw. ñu bëgg toute la population de Thiénaba. waaw attention góor jeex na laay see li may expliqué rek mooy match bi jeex na ñaari coach si jàmbaar lan laay see étoile a gagné par 2 buts à 0 2 à 2 buts à 1 bi marqué par Gora Gueye Euh, Goré Gueye euh, Cheikh Gueye ak euh, Dame ak Dame. attention Siré ñëwul les coachs attention là c'est étoile qui gagne étoile moo gagné étoile moo gagné ñu xool la réaction du coach le coach on demande le coach on coach attention le coach attention le coach Ndiame Gueye Non, on cherche le coach Ndiamegay. Nous cherchons le coach Ndiamegay. On cherche le coach Ndiamegay. Où est le coach Je cherche le coach Ndiamegay. Ana coach Big. Le coach Ndiamegay. Le doyen Ndiamegay. Attention, la réaction du coach. La réaction du coach. Attention, la réaction. Ana coach Big. Ana coach Big. la réaction du coach, le coach Ndiamegei. L'AS Étoile qui remporte, l'AS Étoile qui remporte. AS Étoile, Baymor, Baymor, Baymor. On est que le grand, il a montré ça dans 10. tey ñu gis ni mëne nañ la 1-0 à gis ni l'expérience nga ñun bu ñu nekkee ci ginnaaw xale yi. du dañoo am temps mais li ñu am ci xam-xamu ñu def ko ci xale yi football stratégie la quoi stratégie la euh, ay ay système de jeu nga travaillé ko du ñëw rek bëggu ko topp ci ginnaaw équipe n'est-ce pas du loolu. waaw du loolu ñun li ñu amako fi ñëw ci xam-xam. waaw ñu gis ni bi yow bi la rougé bi la rougé léegi yow lan nga wax xale yi banu banu def football bu rëy bii. non damaa wàññi. damaa wàññi damaa wàññi Baye Talla Gueye moo ma doon fóol comme meneur de jeu n'est-ce pas. waaw ma ko mu defal ma siis. ma génne sama siis bi. waaw xam nga tëj sant excentré yi ñu xam nga bu ñu nee milieu terrain excentré. Mhm. on est on est milieu terrain avant d'être excentré. n'est-ce pas donc rôle bi laa leen wax ni dañ ko mettre en priorité euh, gonfler gonfler milieu terrain bi. loolu lañ def moo match bi au départ xale yi dañu ko yenu premier mi-temps dañu ko yenu loolu laa leen bi ñu mi-temps nañ ko dañ ko yéenee bu ko defee euh, ñu délassé wu ko mel ni ku nekk à l'entraînement boobaa dañuy ñëw. voilà mais gis nañ ni ñëw nañ mais euh, beneen euh, taxawaayu raay bi yow lan nga ko gisee nii ba mën a am ay inter ay infiltré ci biir. waaw raay bi équipe la comprendre nga ne. équipe la mais nag peut-être différence bi rek mooy ci wàllu stratégie ak jàngat tactique système de jeu loolu rek la quoi parce que équipe tey yow nga manqué manqué surtout nag ki nga manqué muy sa gardien titulaire. di di gardien bu mag ci zone bi ñëpp xam ko. nga manqué ko yaaram mi góolu léegi. mu ngi doog mu ngi doog a góolu. Hmm. man dama daan ñëw teere yenn saa sax ak benn góol tey par chance final la ma am yaaram mais dama naan ñëw ak benn góol. Hmm. comprendre nga ni euh, baytaa la def tournoi bu bu bu am solo. Hmm. waaye nag euh, ñun li ñuy jariñ si touche yi. mooy su jafee ñu teqali jafe xale yi dama leen ni bi ñu mi-temps dama leen ni man durant sama carrière bi may coaché Ablaye Faye musuma dóor. Ablaye Faye musuma dóor fii ci terrain bi. waaw waaye loolu wane nga ko mais mais quand ñu jox Siré mu am question yu la jox. waaw waaw Ndiame dama lay na ci benn match boo xam damay arrière ci ginnaaw. parce que jàmbaar dafa mënee étoile deux étoile da koo mënee deux. ñu ñu ruus Omar Gueye. waaw match boobu Omar Gueye la ñu ruus. mais match bi wëlbatikuwaat ci jàmbaar. Hmm. sept minutes ñu dugal ko ci trois bi. waaw bi nga xamante ne ruus nañ Talla Gueye tey maanaam match boobu noonu. Ah, am ku ma dendal ni ma fàttali ma match boobu noonu ma ne ko am na lu ñu wuute parce que mag foofu. mak moo non match boobu bokkuma ci woon. ah boobu boobu nekkuma fi. déglu ma questionné la rek ma ne ko match boobu noonu. booba mag néew fa. waaye match bii tey mag ngi fi waaye nañ nañ seetaan ci kanam. léegi yow match boobu noo gisee match boobu. waa waaw match boobu li nga wax rek. mooy mag nek woon ci ginnaaw. mais Siré leen rek laa lay wax. Uh-huh. damay rendre hommage xale yu ndaw étoile yi. classe gii. Euh, avant nawetaan yi dama naa génn ci mbedd yi am na ci xale yu ma yu ma dab. ni ma Baye Ndiame dañoo namu coupe dañoo namu coupe dañoo namu coupe kaay jëlal ñu étoile ñu am coupe ndax ba nga fi gëj jege gëjee lañ gëjee am coupe léegi nag kon euh, lama ma engagé woon ak ñoom ñëw naa jëlaat étoile deux mille vingt euh, dix huit laa ko jëloon foofu laa ko bàyyee woon foofu laa ko bàyyee woon foofu la gëj am coupe ñëwaat naa ren yàlla may ma. ma amaat coupe léegi nag man après dañ ma bàyyi nag ma noppalu. déedéet Ndiame Ndiame coupe du doy Ndiame. Ndiame coupe du doy parce que avant match bi daa am dañoo joxe trophée bi ak ak caméra bi waaw on va aller live. Babacar nekk nit ku baax Babacar nekk nit ku bëgg lu développer commune bi lu mu xewle bu ñu wooyee ñu ñëw dañuy teg suñuy clivage politique fële parce que politique benn temps la rek le temps de la politique waxoon naa ko est terminé on est dans le temps du développement dans le temps. vraiment boo xam ne nii pour mettre en valeur notre commune développer suñu commune ànd ak suñuy ndaw en avant Thiénaba en avant la commune je vous remercie et que la fête soit merci beaucoup monsieur Khadim yow it ku ñàkk ñaan nga euh, léegi nag dañuy jël kàddu gi jox ko suñu leader. le responsable man invité la. ko ñi dañ laa déy dañuy jox ki nga xamante ne si ne mooy suñu leader. nekk suñu responsable te responsable AFP responsable bu mag moom la ñu jox kàddu gi lañu. jërëjëf euh, Abdou euh, jërë ngeen jëf gars yi gañe neex na de waaye may leen ñu jërëjëf jërëjëf maa ngi nuyu toute la population de Thiénaba di nuyu kilifa yi fi teew yëpp euh, di ci jiital le représentant di maire mon collègue Talla Diagne di ko remercier ci loxoom ni mu demee ci final bi di remercier tous les responsables politiques te mën naa ci lim xaadim mi wax seen tur mais di féliciter la zone de Thiénaba pour cette belle finale euh, vraiment finale bi rafet na organisation bi am na fair play nit ñi génn nañu et je pense que c'est ça le rôle sport di féliciter bu baax le mouvement dirigé par Babacar Ndiaye et tous nga xam ne wax dëgg yàlla kilifa yi bëri nañ ba mais bu jeunesse bi zone bi jéglee ne Babacar lañ ko tuddee loolu sas mënu ko rëy kon yoon bi ngeen nekkoon ba yàlla tax ñu jox leen honneur bi yoon boobu leen ko bàyyi Modou wax na ko Abdou wax na ko ñeneen wax nañ ko Ngunjaan ak Thiénaba ñoo bokk arrondissement ca maam ya ba léegi ñoo àndoon di xeex ba yàlla def des jeunes cadres comme man comme dans la commune de Thiénaba Touba Toul Ndiayène Sirakh jóg pour jël le destin de notre commune en main kon loolu buñ ci dellu ginnaaw xëy bu ñu li mag ñi defoon waaye àdduna dafay dox et ces jeunes il faut les encadrer et loolu mooy le sens de mon engagement munuma bañ a jàppale Thiénaba parce que nag ay acteurs politiques lañu te dañu am yéene ci réewum Sénégal waxuma la Thiénaba waxuma la Ngoundiane ku am yéene ci réew mi nag mbay sa wewu tànk ngu Ngoundiane kese mënul fal sax député te ñun dañu bëgg réew mi cër biñ fi yàlla jox ñu jël ko liggéeyal réew mi c'est ça le sens de notre loolu bu amee nag Thiénaba dafa nekk ci cànk yi nga xam ne moom lañu njëkk a dox ci arrondissement bi dox ci département bi dox ci région bi dox ci senegal kon loolu moo waral tey jii nii ginnaaw bi ma ànd ak ces jeunes ci lépp lu ñu nekk ci lu baax maa ngi ci ak ñoom bu leen saaga bu leen xuloo waaye amal leen nit ñi njariñ amal jigéen ñi njariñ amal jeunes ñi njariñ ëllëg bu ñuy séddale duñ leen fàtte loolu laa leen di dénk démb loolu laa leen di dénk tey bu ko defee ku wax ngeen wax ku jëf ngeen jëf Babacar maa ngi lay féliciter toute l'équipe qui t'accompagne Abdou Lamine Mamour yéen ñëpp véritablement ñoom Moussa bu ma limee dinaa fàtte ànd bi ngeen ànd boole leen mbokk ndey ak baay respecté ñi fi nekk te ñu falu xam ne falu nañu cinq ans c'est ça le jeu de la démocratie bu ñu defee lu baax ngeen ànd ci bu ñu defee leneen lu safaanoo ngeen jóg xeexal askan wi c'est ça le sens de l'engagement politique et je pense que acte bi ngeen def tey def ko bi école di ubbi c'est ça loolu la responsable politique di def yoon boobu boo leen ko bàyyiwul waa kenn boo doxuñu fu ñu jaawul xam nañ ku leen amal njariñ te boo leen góor góorgóorloo ëllëg na leen jox seen cër maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm wasalaam merci. merci beaucoup monsieur le maire merci encore une fois euh, dañuy jox maintenant le parrain du jour monsieur Babacar Ndiaye ki nga xamante ni nii fii la juddoo fii la màggee fii la defee ses œuvres sociales. moo tax tey ñun la jeunesse am un œil sur lui ba tuddee ko journée bi nga xamante ne nii y' a plus de 34 000 jeunes dans la commune de Thiénaba ñu tànn ko ci un ça montre que il a des qualités et ces qualités moom lañ bëgg a woon la jeunes de ba ces qualités là moom lañ bëgg a woon euh, la jeunesse sportive de de ba pour que demain ñu rendre la monnaie pour que demain aussi ñu xam ne il a donné sa pierre dans l'édifice de la jeunesse de Thiénaba monsieur Babacar Ndiaye vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup, Monsieur John. Merci. Merci beaucoup, euh, Monsieur le maire Mbaye John. Merci beaucoup, Monsieur Khadim. te kàddu gi nag dañ koy jox le parrain borom bis bi bis borom lay nuróol bis du tuuti te ku gis bis bi xam ne tuutiwul waaye ku la xoolit xool li nga fi xam ne mérito nga ko daqoo rek tax ñu jox la ko da nga koo doxee moo tax ñu jox la ko bu ne woon yàcc na yasar rek ngay def te kenn du ku yàcc na yasar kenn du la dara moo tax lépp lépp lu muy dugg da ci dugg ak engagement suñu responsable bii nag di Babacar Ndiaye ma ne nañ ko xool bu baax te jàppale ko parce que lii Mbaye Dione wax ambition bi Mbaye Dione wax moo nekk ci moom te loolu moo ñu booleeg moom loolu moo tax ñu ànd ak Mbaye loolu moo tax ñuy conquérir pour jot commune bi kon na ñëpp may nopp waaye nañu may xel waaye nañ ko may ay bët monsieur Babacar Ndiaye bu avez la parole borom rajo neex di reel ñu xool daa jëf waay kon asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu population commune Thiénaba bi yëpp di jiital ci nuyoo bi euh, sunu sëriñ Baye Assane Seck di ñaan mu yàgg fi loolu te euh, di nuyu monsieur le maire Talla Diagne moom mi yàlla teg ci boppu commune bi te ñu nangu ko comme ni ko le maire Mbaye Dione waxee léegi. di nuyu monsieur le sous gis nañ fi soo représentant monsieur Assane Wade di ci kontaan bu baax mais di. kontaan ci bis bi tey képp ku fi teew ngir bis bi man nuyu naa la man Babacar nuyu naa la ci turu mouvement bi kontaan nañ ci vraiment sant nañ leen di leen xamal ne euh, daanaa leen wax ku ñeme ku ne dañu laa déy je pense que loolu ma doon wax tey firnde baa ngi ñëw loolu ma doon wax tey firnde bi mu ngi ñëw monsieur le maire Mbaye Dione jërëjëf am na à chaque fois euh, nit ñi dinañ ne Babacar parolam day appesantiru ci mbay mais ku def lu rëy am lu rëy tey je pense que bu ñu demee bay ne parrain de la zone 10 monsieur Babacar Ndiaye la lépp sa liggéey la parce que nag dama ne bu ñu naxante parrain bu toll nii bu ñu ma ko joxee c'est parce que am na lu ma wane te li ma wanee ginnaaw yàlla yow la li ñu wane mouvement wallu askan bi li mu wane ci échange yi ñu jógee ñëpp gis nañ ko te wallaahi ginnaaw yàlla jëmm ji la mbay yàlla na la yàlla fay. mais nag may wax ak cette jeunesse là gis ngeen dama ne yéen jeunes yi yéen laay waxal il faut ñu xam ne il est temps ñu joxante loxo. il est temps ñu joxante de passage je salue mon grand frère euh, Khadim Gueye Khadim kaddu yi rafet na mat na lii mooy kaddu leader. je pense que ñun ndaw ñi il temps ñu boole suñuy doole boole suñuy force xam ne euh, commune Thiénaba bi ñun ñoo ko mën a defaral suñu bopp ñun ñoo ko mën a defaral suñu bopp nit nag day am wéeruwaay nit day am wéeruwaay am référence gis ngeen lii nekk fii jëmal tey ci table bii muy lu am valeur mbay encore merci beaucoup mais mouvement bi li ñu ñor sunu askan moo ñu ñor je pense que barki démb am na village yu ma sillonné ànd ak jaw koo xam ne le maire Mbaye Dione moom ma booleeg moom pour lu ñu diggee woon ci élection yi ci élection locale yi lañ ko diggee woon pour pourtant mënoon nañ ne ñu maire bi dañ koy bàyyi mais dama toppaat village yëpp ànd ak ki ma booleel pour ñu respecter li ñu waxoon ak waa dëkk boobu. je peux prendre l' exemple de Njaañ de Kër Matar et de Mbaba Fall loolu la ñuy doy leader te loolu nag dama ne. kuy liggéey ak kuy caaxaan boo ko gisee xàmmee ko loolu kuy liggéey rek moo koy def wallaahi keroog bi ma demee Njaañ ba waa Njaañ génn tuuti sama rongo ñu tuur parce que gor su ne gor nga parce que wax nañ fa lu am solo loo xam ne lu luñ la santoon rek dolli nañ ko population commune Thiénaba bépp kontaan nañ ci yow ma ñëw nag ci la zone 10 A vraiment la zone 10 mënu ma leen fay di teg affaire boobu ci loxo Ablaye Diaw président Diaw la zone 10 yéen ñëpp sant nañ leen ñun la mouvement Wallu Askan bi parce que nag comme li nga wax mën mënoon nañoo jël ku nekk ci parrain mais pour cette année ngeen choisir la mouvement Wallu Askan wi ñu ngi leen ci gërëm bu baax di remercier équipe yi nekkoon ci compétition bi yëpp vraiment kenn démérité wul tey ñuy féliciter ki gagné di encourager ki ñu gagné je pense que Thiénaba rek moo gagné parce que ñaari équipe yu nekk biir na ba di football ndam demul ndam dikul ñun ñëpp ñun la jeunesse ñoo am victoire enfin may remercier suma mbokk politiciens yi nga xam ne ñoom ñëpp tey dañu ma wuyu si ah maa ngi wax léegi le grand xaadim Thiénaba origine mu ngi fi serviteur ñëpp kenn desul mbaykan le président Gora Ndiaye le maire Talla Diagne nga xam ne non seulement dafa yabal délégation mais dafa ma woo ba bureau jàppale ma jàpp bu mucc ayib ci final bi ne ma lii dama la ciy jàppale parce que ci sama njaboot nga koy def kon le maire ñu ngi koy sant bu baax mais daal encore une fois ma leen di rassurer le mouvement wàllu askan bi Babacar Ndiaye jiite jàpp leen ne benn ambition rek la am mooy conquérir la mairie de ca na ba ba def ko lee nga xam ne am na Ngoundiane je pense que tey mairie bi jàmbaar nañu mais ku gis stade municipal Ngoundiane bale loolu lañu bëgg fii ba nga xam ne final wala match bu fi amatee dañuy gis nit ñu toog ci kaw tribune bi te loolu nag dama ne jamono mooy dox jeunesse bi nañu comprendre jàppale cette jeunesse là ñu ñëw defar dëkk bi suñu paree dem bàyyi suñuy rek defar ko moo yooyu daal laa amoon ne dinaa leen ko wax mais di gërëm di kontaan vraiment ci ASC yëpp jigéen ñi ñëw bàyyiwuma kenn sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. maintenant dañuy laaj euh, le meilleur buteur. meilleur buteur bi na ñëw Cheikh Gueye monsieur Cheikh Gueye maintenant monsieur Cheikh Gueye avec cinq buts monsieur Cheikh Gueye léegi euh, monsieur le maire monsieur le maire monsieur le maire avant de partir dimbali ñu bokk joxeel ñu bokk le meilleur le meilleur buteur monsieur Cheikh Gueye ñu may ñu may monsieur le maire ñu may monsieur le maire Mbaye. non non. <laughs> voilà Cheikh. première but bi la dugal voilà merci beaucoup merci beaucoup léegi nag li ñu bëggoon mooy joxe euh, euh, euh, médaille d'argent bi dañu bëgg waa raay bi ñu def benn rang jaar nii monsieur Daouda Wade monsieur Daouda Wade est-ce monsieur Daouda Wade monsieur Daouda Wade on appelle monsieur Daouda beaucoup merci merci du courage du ngeen jëf Babacar ak ñëpp kontaan nañ ci yéen jaar ngeen def waa raay bi vraiment démérité wu leen ay jàmbaar ngeen c'est que gars yi dañoo bari ay pexe rek mais jàmbaar ngeen quoi ay mag lañ ay mag a ci rax rek affaire bi rax foo mi daal raxee mag rek foo mi daal raxee mag mais jàmbaar ngeen boy yéen waa raay bi jàmbaar ngeen te bu ñëwee koñ bi dinaa leen neexal di ngeen a maqus ah Cheikh Diagne Cheikh Diagne ah Cheikh ci raay bi waaw góor jërë ngeen jëf waaw ASC Rail bi ñoo nekk nii di jël seen euh, seen trophée euh, seen seen médaille euh, d'argent ils n'ont pas démérité match bu rëy lañ football vraiment ay jàmbaar lañ c'était leur premier final ñu rayante ba ñëw ba yegg si final la Daouda Daouda Daouda Wade moo leen di jox trophée bi nii wax dëgg yàlla ay xale yu am jom lan ma am ASC bu mag bu nu continuer rek dina yàgg yàgg yàgg dina ñëw xale yu am jom dëgg ba nu commencé ba bàyyi bàyyiwunu seen dirigeant yi wax dëgg yàlla jàppale leen grand pâté ñoom Pape Mboup ñoom lépp nekk ASC boo am solo ñoo gis noonu ñuy ñëw Mbaye Cissé Jibi ñoom ñëpp ñu ngi noonu ASC raay bi ASC bu am solo boo am jom vie Mbaye ngi noonu ndeysaan football nañ bay bëgg a dee vraiment ay xale yu am jom ñu am entraîneur bu am talant bu miin coupe il n'a pas démérité c'est le football c'est le tey ASC étoile moo jël ndam li ëllëg yéen man ngeen ko jël Baye Zala ngoog Sadio Mané Sadio ngi noonu vraiment Cheikh Gueye Cheikh Gueye ngi noonu di ñëw le buteur le meilleur buteur de la. le coach lay fay mi ngi noonu jàmbaar la yàgg ci nawetaan wax dëgg yàlla coach bu mag a mag tey mu. waaw ñu gis baay Dame muy jël muy jël euh, moyen boobu. ëppale wuñ leen dara lu dul bi rek waaye jom ji moom yéen ñëpp am ngeen jom c'est le Thiénaba ki gañ bu leen Thiénaba mooy mooy moo moo gagné moo gagné. waaw enveloppe juróom fukki junni lan jox ñoom waa ASC Rail bi waaw Daouda Wade moo ko jox waaw Gora Gueye Gora ngi noonu il mérite euh, d'être sélectionné euh, au Thiénaba FC lan ko war a yóbbu moom maa ngi koy wax coach bi mu xool ko baax bàyyi ci xelam vraiment Gora ku am jom ku mën a football ku bëgg yor ASC yor centre fii vraiment booy bu xam li muy def bàyyi coono ngi noonu. waaw les les joueurs joueurs taxaw nañ taxawaay bi nga taxaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax attention Baye Mor Seck mi ngi noonu euh, l'ASC Étoile récupère ses médailles euh, médaille le di reetaan euh, ñu leen di wax ni leen rek ni ñaari ASC yëpp am jom wax dëgg yàlla ASC Raay bi mérité na ko mais tey yàlla moo dogal moo ñàkk final bi mais bu déwénee dina mën a ñëwaat yàlla baax na ñu doon xam ne analise lañ doon def rek seen mbokk Gora Mboup moo doon analyser di leen xamal ni ñaari équipe yëpp suñuy équipe lañ c'est le Thiénaba ki gagne ñuy encourager lay Faye di féliciter Ndiame Gueye vraiment euh, Baye Talla Gueye mi ngi noonu Baye Talla Gueye waaw ASC e Étoile waaw ASC e Étoile a ngi noonu ñoo jël seen coupe wax dëgg yàlla ñuy encouragé ASC Rail bi di nga xam ne démérité wunu bu ëllëgee yàlla mën na leen a jox ndam ndax man euh, seen organisation ak seen yar ak seen engagement rek moo leen indi ba final la ndax jàppte bàyyi la woon ba nu ba nëgëni ñi ngi ci ñi ngi ci ba tey ñu yegg si final wax dëgg yàlla mérité woon ngeen final bi mais yàlla mooy dogal. ASC étoile la nekk équipe boo xam te ne ñu am jom ñu am fulla am fayda ñoom it bëgg li ñuy def ñoom tamit euh, tey ñu wane jom vraiment tey ba yàlla may leen ndam waaw Bachir Seck mooy jël trophée kii euh, médaille am euh, góor a Cheikh Pape Diagne Habibou Seck mooy jël Omar Gueye Omar Gueye léegi le trophée ñu koy jox ça c'est le doyen Ndiamé Gueye waaw C'était la joie des joueurs de l'ASC Étoile. Taï, le capitaine de l'équipe Gora, qui va venir prendre le trophée. C'est Baychon. Gora na lu rafet djel djel bi delloo ko Baychon. Ci match bi Gora moo nekkoon capitaine bi mu ñëw jël trophée bi jox Baye waaw waaw muy Gora Ndiaye mooy joxe trophée bi Gora Ndiaye mooy joxe trophée bi loxo ngi ci yal na yàlla doon laa jàppale yal na yàlla jàppale ñëpp. attention. léegi nag le vainqueur. enveloppe vaincu bi. damaa bëgg ñu jox. vainqueur. ak Talla Gaye mii. Talla Gaye mii. vainqueur bi ak Talla Gaye mii. Talla Gaye déggu. Alpha Ndiaye déggu. ku wax ku wax. Mansour Ndiaye mii. ku leen wax. voilà voilà merci beaucoup merci. Oh, oh, oh.